Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokk àdduna salaamaaleykum mbokk Afrique saa su ne rek bu ngeen gisaatee ñu jugaat maanaam dañuy jugaat ci li nga xamante ni mooy weer bi ndax weer bi saa bu ñu ko dëblanee rek ngeen xam ne carrément ñu ci weeru safara buñ ne safar ne màggal buñ ne màggal ne màggal sëñ Cheikh Ahmadou Bamba comme maanaam li ca des nag rawati ba dinaa leen woon tuuti li nga xam ne moom la ñuy waaja ci biir lan la togg bi bernde yi ak li nga xamante ni loolu la ñuy waxtaanee ci li nga xamante ni mooy weer safar dinaa leen wan mbana yi wan leen li ngeen xam ne ci kattanu suñu borom mooy bernda yi nga xam ne moo war dugg ci biir kër yi génn ci biir garage yi jëm ci kaw tali yi lépp di ngeen ko am ci kattanu suñu borom de leen ñu suivre nag fi ngeen ko jàpp foofu la te ngeen may mu tuuti ma ñëw maa ngi ñëw comme besoin diaz warul lanaa kulla si sahmin wa si haramin wa yassiran kulla si taxsirana أبن لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا الرشد bi nga xamante ni weer wi yàlla la ndax fukki dërëm boo ci def bu déwénee day nekk ay millions bu déwénee boo ci defaatee ay millions mu jural la ay milliards kon maanaam jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ki ñu toogal nag beneen kilifa la nekk ci li nga xamante ni mooy entreprise bi dañ koy bàyyi mu nuyoo papa ñu ngay seet cheikh bi ñu ngi leen di delloo siyaar di leen nuyu di nuyu waa entreprise bi yëpp ci kaw ba ci suuf entreprise bi moom amul ko gën a mag ak gën a tuuti Euh, waaye dañ koy tàmbalee ci kaw ba ci suuf euh, di leen nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal yokkute nag ba ñu yëg ko ci safar bi ñu ngi koy ñaanal waa entreprise bi taxawaay bi taxawaay bi ngeen ci am tey weeru safar nekk loo xamante ni dañuy dëmlal li nga xam ne mooy màggalu sëñ Cheikh Ahmadou Bamba bi tey ji maanaam yéen taxawaay bi yéen taxawaay bi ngeen ci am lan ah, xanaa da ci gën a farlu rek man de gars yi dañu toog fii benn année ñuy waxtaan ba mu yàgg rek ñoom ñu jékki-jékki rek créé ko ñu ne garage bi entreprise bi ni mu toll nii. Euh, comme ñi ngi door a ñëw Malika nii euh, affaire yaa ngi commencé yaatu est-ce que du ñu créer safar nga xamante nii euh, bu tolloo waa koñ beeg ñëpp dañ leen di invité ñu ñëw ànd ak bokk ak ñoom bés boobu bés boo xamante ni dañ ciy magal Serigne Touba di ci ci safar bi ci lañ ko tàmbalee ndax waxtaan la waxtaan lañ ko tàmbalee woon rek def ko lu ndaw mais depuis boobu léegi daal wax dëgg yàlla. gaa yëpp ñu ngi ciy jàpp euh, muy gën a yokk bu ñu demee ba ci kaw tamit yenn saa bu ñu demee ba yegg ci cappaandaw li dañ ñu ko waxee njaatige yi ñoom tamit ñu def ci loo xamante ni day dem ba romb sax ñun lañ ci def. te jii ngeen nekk tey jii ci entreprise yor ay xale yoo xam ne yéen leen di tàggat di leen jàngal métier tey jii bu affaire demee ba toll fii nii nii maanaam tey métier bi dangeen ngeen koy jël teg ko ne topp li nga xam ne mooy safar si ànd ak sëñ Cheikh Ahmadou Bamba nekk ci li ngeen war a nekk maanaam bu ngeen demee ba toll fii maanaam yëg bi yëg-yëg ngeen di am ci sëñ Bamba lan la yëg Ah, bu euh, loolu moom kuy taalibe di nga ko xam yëg-yëg bu am doole lañ ci lañ lañ lañ ciy am dañuy toog di dundu sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax a baax ndax euh, ñun ñi ku mel ni man mi euh, dama cee juddu yaru ci xam ci lu bari nag di ñaan yàlla nag gën a nekk taalibe man loolu moom a ñor te njaatige ak ñooñu ñëpp tamit dañ ci jàpp ndax euh, comme bi ñu tolloo ci bésu safar bi nii liggéey bi bari na lool mais duñ ñu imposer sax liggéey bi dañ ñuy bàyyi ñu yeggali suñu bésu safar bi yëpp waaw. fàttali ñu tur. Euh, ma Fatim Fall la ñu koy wax Mor Fall. mécanicien waaw. waaw macha allah ndax xam naa ne fii moom. waaw ku fi ñoo xam naa sa xol dina sedd parce que entreprise bu toll nii jël lu toll ay xale yu bari di def ci ñoom xam-xam. dafa jafe comme maanaam loolu tam dañ leen di sant tam di leen gën rek ci li nga xamante ni mooy yéen a ngi koy def fii di wax nag état bi nag gis nga entreprise yi nag ñu ngi nii ñii suñuy papa lañ mais ay doomu réew mi lañ doomu Sénégal lañ parce que tey bi ñu amee mën nañ ko yóbbu feneen mais dañ ko indi tey seen biir réew nekk ak seen i mbokku talibé nekk ak tamit seen i mbokku jullit nekk ak seen mbokku chrétien ba pare bokk ak ñoom nekk benn benn euh, exemplaire tey ji ci biir Malika tey yor fi tey seen entreprise tey di si jàngal xam-xam ko dañ lay bàyyi dañ lay loolu moom loolu moom euh, dinaa ci wax ndax euh, Owa Trans entreprise la boo xamante nii moom entreprise bu yàgg la euh, ci Sénégal du du tey am na ñu fi def ay formation yu bare bare bare bare génn ci diggante wàllu chauffeur mécanicien soudeur électricien ay tôlier ñoo xamante nii ñi ngi ci yeneen entreprise di liggéey ñoo xam ne ñëpp lu ci ëpp daal lu bare bare bare ñi ngi ci ay entreprise yu mag fii lañ leen jàngalee fii lañ leen tàggatee ba ñu mën a dem euh, dem feneen di liggéey foofu mën a mën a yor seen bopp loolu tamit moom wax dëgg yàlla entreprise bi moom participer na euh, ci réew mi ci lu mel noonu lu bëree bëri tàggal tàggat na fi ñu bëree bëri bëri daal waaw ñu bëri jëlee nañ fi xam-xam ba mën a demal seen bopp waaw. waaw di ñaan loolu mu yokk rek euh, mu gën a yokk nit ñi di gën a ñëw liggéey bi di gën a dox. matériel bi di gën a yokku ñi fi jàng tamit gën a dem ba kenn ku nekk di gën a mën a demal sa bopp daal muy gën a gën a am tànk kanam daal ñëpp bokk ko. alhamdulilah waa jërëjëf euh, kontaan naa ci yéen. wax kon maanam dañuy gën a amaan mbégte waaye jëmm ji toog nii dafa nekk jëmm joo xamante ni jëmm ju yéeme la parce que bu ñu nee jëmm ju yéeme mooy George. te bu ñu nee mooy maanaam koo xamante ne tey bokkuñu diine bu ñu nee bokkuñu diine mooy ñun jullit lañ moom karate la waaye tey ji moom maanaam dafa jël jëmmam jël léppam. tey ñëw bokk ak jàmm yàlla yi tey ci bisum safar si maanaam lii dafa nekk exemple boo xamante ne tey lu nit ñi war a mën a jàngal la ci àdduna tey ji maanaam diggante Sénégal bi ñu nekk jullit ñi ak chrétien daanaka benn lañ parce que bu ñu benn lañ yàlla suñu borom moo leen sàkk parce que yàlla suñu borom moo sàkk chrétien moo sàkk jullit waaye tey dañoo nekk ci loo xamante ne mooy weeru safar tey ji moom mii nga xam ne tey dafa jël léppam jël dooleem jël jëmmam jël léppam tey boole ko tey ji ci jëmm ak Cheikh Ahmadou Bamba kon tey ji maanaam li jàngataat la ci biir jullit ñi jàngalaat la tamit ci mbokk Afrique dañ koy bàyyi mu nuyoo Jojo gannaaw ba nga xamante ni def ngeen lu yéeme tey dañ lay bàyyi tey nga nuyu ah, um, ginnaaw bu ma sant yàlla nuyu ñëpp waaw nuyu sama mbokk yëpp waaw nuyu sama collègue yi tamit ñoom Mor Fall Gora Diop Dame ñëpp ñu bokk ci mbir mi daal comprendre comme Awa Trans la nekk société bu mag la de transport la ñu def comprendre bon comme safar da koy ko yàgg di def ren mooy ñetteel année bi ñu koy def bon yàlla na yàlla yokk rek daal ñu gën koy yokk daal dina def lu wér tey jii ñu gis ni yow tey bokkoo ak ñoom xeet bi nga xamante ni ci ngeen nekk yow tey chrétien nga ñoom jullit lañ te nga bokk ak ñoom garage bi bokk ak ñoom entreprise ba pare teewul tamit nga jël sa doole lépp tamit def ko tamit ci li nga xamante ni mooy weeru safaru sëñ Bàmba gi maanaam loo xamante ni lu ñu la dee la wala loo xam la wala dafa am secret boo xam ne da ko koo jàngat ci ñoom. waaw ah secret la secret la parce que nit ki lépp looy farlu rek lépp looy def na ci boole tey ak ànd ak ñëpp nekk ñëpp maanaam euh, safar gi daal Bàmba moomu ko. Cheikh Amadou Bamba ñëpp ko moom muy muy chrétien bi muy musulman bi ñëpp a ko moom waaw. loolu moo tax maanaam seex Bamba Bamba partout. partout fépp la partout waaw partout pour ñëpp la waaw ku ci def daal ci safari sa doole ëllëg di nga ko gisi waaw loolu moo tax man man daal ma ciy def sama doole daal. jàngat bi nga ci am ne ba tax nga gëstu ko nga nekk boo ci defee sa doole bu déwénee ne nga koy gis te day gën a yokk kon maanaam yow am nga loo ci jàngat ba gis. ah gis naa ko parce que sama patron moo ko wax ngi nii toog Mor nee na ma loo ci def rek. da nga gën a yox ak góor a jom ñi ngi toog dañoo loo ci def gën a yox moo tax tam ñi ci suñu bopp da ci gën a maanaam da ci gën a def suñu doole gi ñu farlu maanaam tey ji maanaam bu leen nit tey ji romboon tey ji ci mbedd bu ne la kii ko julit da nga koy wedde parce que li tax da nga koy wedde mooy maanaam tey sol nga mbaxana boo xamante ni mbaxana <laughs> mbax <laughs> mbaxana alaaji baara bi solal ñu bàyyi laat ah, waaw waaw solal ñu la bokk mais lépp ci la bokk parce que man sama moitié famille lan sama moitié bi ñooy musulman waaw ah, man sam papa rek moo may chrétien ci famem mais rakkam yeeg magam ñëpp ay musulman lañ papam bu ko jur sax musulman la waaw ah, moo tax amul xaajale daal amul xaajal seen man sama jaru may wax yow sax man sama jaru musulman la waaw ah, moo tax man fépp laa bokk daal waaw man lu ñëw ma ànd ak moom l'essentiel na jëm ci rek waaw waaw te Bamba moom gëm nañ ko daal waaw ba salaam ba macha <laughs> allah kontaan nañ jaajëf waay ba alhamdulilah wax leen jaajëfe borom jaare jërëjëfe alhamdulilah ba léegi ba léegi ñu ngi ci wàccaay bi nga xam ne mooy wàccaayu safar gi léegi tey ñu ngi ci biir entreprise toogal ni benn ndaw la boo xamante ni mu ngi ci biir entreprise dañ koy bàyyi mu ngi lay siyaar delloo siyaar ku am jàmm baax yàlla bu baax yéen bëgg sëñ Touba alhamdulilah gannaaw ba nga ne sant kon dañ lay bàyyi ñu ci li nga xamante mooy ci biir waxtaan bi tey ji ci weeru safar tey ji ngeen jël tey bis bi nga xam ne mooy bisub samedi tey ji ngeen waajal seen bisub safar tey ji maanaam lan ngeen gëstuwaat bu baax a baax a baax ci mbiru sëñ baax waaw sëñ Bamba de xanaa tànk kanam rek amul tànk ginnaaw ndax bañ ko sosee ba léegi si résultat di ñaan yàlla yonent bi ak sëñ Tuubaa mu gën a jëm sa kanam te ci kanam la jëm ndax si ndaw lañ commencé woon jëm ba fii te bu déwénee bu gën mu gën a yokk te lépp sëñ Tuubaa tax ñun sëñ Tuubaa rek ak ñor sëñ Tuubaa rek leen yaakaar sëñ Tuubaa rek kese Bamba tey jii yéen a ngi ci biir entreprise entreprise bi mooy entreprise boo xamante da ngeen ci jàngal ay ndaw xam-xam tey ji ngeen jël euh, liggéey bi yëpp takkoon ne daan na ñu ñëpp tey ji ñëw génn man ko tey ji ñu def li nga xamante ne mooy bisub safar jagle ko ki nga ne mooy seen Cheikh Ahmadou Bamba tey chrétien yeeg njaago yeeg ñëpp tey ji ñëw tey bokk ak yéen tey ji ci biir bi nekk ak yéen di liggéey mais teewul tamit bi safar bi ñëwee tamit ñoom tamit dañoo ñëw tamit dooleel leen ànd ak yéen tey ji ci biir weeru safar bi tey ji maanaam taxawaay boobu ngeen gis nii yéen donte yéen a ngi ànd nekk benn te bokkale xeet bi ngeen jëm te déggoo ngeen ci li nga xamante ne mooy weeru safar bi ànd ak seen Cheikh Ahmadou Bamba tey ji waaw secret bi mooy doon nekk benn rek te xëy na Georges mi chrétien la mais am na ñeneen ñoo xam ne sax duñ chrétien mais su weer bi dee dañuy ñëw fii man maa ngi sa xaalis mais su ma ñëwee xaw ma kii chrétien la xaw ma kii tijaan la xaw ma kii la su ma ne bisimilah gars yi weer bi dee na bisimilah su ma ne bisimilah rek ñëpp pas-pas bi ñu am rek mooy joxe yéene te am na ñoo xam ne sax mën nañu Georges chrétien am na ñoo xam ne tey ay tijaan lañ mais waroon rasulullaay dërëm manqué si seen weer bi yëpp dañuy cotiser comme ñëpp ba gis nga leen ñoo fi nekk fay di rey seen bopp def lépp fii lu ne ngi fi entreprise la di ñaan yàlla du jëm sa kanam lii tamit ñu gën ko yokkal mu doon ay safari safar ba ren liñ ci def bu déwee dañu def lu ko ëpp te noonu lay demee naa la si benn lañ commencé woon su lu ndaw lañ commencé woon ba fii kon na ñaan yàlla yàlla yokku rek te dañuy yokk ay xelu yu bëgg seen bopp nag am fu ñu teg fu baax a baax a baax a baax a baax man mi nga xam maa gën a ñàkk xorom si groupe bi maa si gën a doon tuut tàng si ñoom mais am na fu ñu ma teg te su ma ñëwee soeur bi deyee ku mën a jox ma nga jox ma loolu nag du dara lu dul pas ak yéene rek ak bëgg mbir mi dem ca kaw ca kanam te noonu lay demee saa su ne. c'est que damaa ñëw damaa ñëw gis la mais ak sa solin ak sa jëfin ak sa tooñ ak ñi ngay tooñee kilifa yeeg yooyu ma xam ne yow baax nga quoi daanaka yàlla la fi yàlla yàggal ak ak ñi nga xamante ñoo nga fi bokkal tey ji ndaw yi nga xam ne yéen a leen di jël tey di leen tàgg tey ji maanaam yéen yëg-yëg yi ngeen am ci ndaw yi ba li ngeen ci bëgg en sax pour cent yéen a ngi koy am ci ndaw waaw ndaw yi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ndax gis nga leen tey ñu ngi fiy toog ku si gën a ndaw tey su ma ko ne hee jëlal jël boobu ñu jël su ma ne jëlal mbalit ñu jël mbalit loolu yëpp nag duñ ko félicité kenn koy félicité suñu grand bi Mor Fall mu ne garage bi ak ñi fi nekk moom macha allah en spécial boole na ndaw ñi te ndaw ñi tamit dégg lañ ma waaw loolu lépp moom moo ko liggéey moom man ku ma fi gis ne la xee rek nga ñëw barke borom Touba loolu nag yàlla may na ma ko te yàlla ma ko yàlla dindi di gën a góorgóor rek gën wax ndaw yi moom mi nga xam moo fi ne si garage bi mu gën a jàpp gone di la woon a yoon wi nii la yoon wi moom moom macha allah ñëpp benn lañ amul chauffeur amul mécanicien ñëpp benn lañ on est ensemble. kontaan waaw bëgg naa ci baax a baax. alhamdulilah dernier waaw dernier cas di ñaan rek ñu ci jàmm ñibbi ci jàmm ak salaam lépp luñ fi def balaa di yoon ñu këpp ñun ñëpp entreprise bi jëm ca kaw ca kanam ñu fi nekk tamit yàlla may leen jàmm ak salaam talak fekkee ñëpp ci barke borom Touba borom màggal bi. macha allah yéen a ko dégg nee na bàkki borom Touba bàkki borom màggal bi. wax leen jërëjëf Serigne Fall maa lay siyaar. maa ngi lay nuyu bu baax sëñ maa ngi lay delloo ziar sëñ bi. waaw yaa ngi am jàmm. alhamdulilah rabil alamin ñu ngi ci jàmm bu baax a baax ci safar bu mucc ayib fii nii ci biir Malika fii bon tey féete ñëpp daal ci seen i xam nga toogaay ak seen i teewaay yàlla defal ñu safaru déwén. ba li nga xamante ne moom la sëñ Touba liggéey fii ba ñu mën koo daal taaf ci barkeem ci macha allah. loolu daal ñu ngi ciy bëggee ñëpp gars yu baax yi fi nekk ñoom Zorso ñoom Mor Fall ñoom Paplo ñoom Modou Gueye ak ñoom Gora Diop ak euh, mboolem jigéen ñi fi teew ñi nga xamante ne daal ñoom ñoo waral bés bi nii te safar bi góor mag ndaw jigéen ñu ngi leen di ñaanal tout yàlla defal leen jàmm ci àdduna bi ak laaxira ak màggal gi nga xamante ne mooy dis bi safar la ci ay jumab démb bi ci mujjee ci yoon bi ñuy dem màggal ñuy nekk ci tey gaaw muy samedi yàlla yóbbu ñoog jàmm indiwaat ñoog jàmm ci barkeem incha allah ñu ngi koy ñaan di koy dara jaal ñëpp ñu ngi leen di souhaiter en beneen at euh, ñu teewaat ko comme ren ji nga mën ñoo defal di ñu defal ren jii. incha allah kontaan nañ ci merci kilifa gi ñu waaw maa ngi siyaar man itam ba léegi ah maa ngi leen di nuyu ñeen ñëpp di sant waale ñi nga xam ne ñooñu fi boole mooy suñu patron yi nga xam ne ñoom Assane ak ñoom Maguette euh, ñi tax. ñun ñëpp mu ñu mën lii parce que ñoom it wax dëgg yàlla ñu ci seen ginnaaw ñoom sant nañ leen gërëm nañ leen ak mbooloo bi nga xam ne moo fi teew ñun ñëpp ñu ci seen ginnaaw quoi kon nag euh, kontaan nañu ci ñoom kontaan nañ ci yow it yow mi nga xam ne yow teew nga ci bés bi sant nañu lépp waaw maanaam tey sos mhm. tey bokkoo leen diine waaw waaw tey mu ñëw ànd ak yéen ci mhm. ci ànd ak yéen bokk ak yéen waaw ci Ahmadou Bamba waaw parce que nee na bi mooy rek mooy trois ans c'est vrai waaw tey jii yéen a koy waajalaat nii ah, ah, ah, mu nekk tey ci dernier bi nga xam ne mooy bisu weeru safar yi waaw mooy dem bisu màggal mhm. tey taxawaay bi yéen ak waa garage ànd ak maanaam yëgis c'est vrai même temps Soso ci boppam bokkuñu diine waaye sant nañ ko parce que moom boo ñëwee doo xamee ne murit la doo xam tijaan la doo xam chrétien la parce que ci lépp lu ñu nekk rek mu nga ca ak ñun jàppale loolu lu ñu nekk rek ci lii sax ñun ëppawuñ ci doole parce que mu ngi ci ak ñun ci lépp wax dëgg yàlla loolu leer na ñi fi nekk yëpp itam santi nañ ko bu baax a baax itam macha allah sant nañ ko sant nañ la yow mii. Hmm? dernier kaddu gi mooy ñun ci suñu bopp bés bi ah bésu ñëpp la parce que cante la rek dañuy sante sant nañu ñi nga xam ne ñooñu ñu uuf ak ñi nga xam ne ñooñu fi indi ak ñi nga xam ne ñoo ñu fi teg ah sant Serigne Touba itam sant yi ñëpp parce que ñun ñëpp diini ba diini bi yëpp benn la rek waaw diini bi yëpp benn la ñun ñëpp waaw. waaw diini yëpp benn xam nga sëñ bi wax waxaat ayol waaye dañu ne ku wax sa xel dal wala nga kontaan am nga droit waxaat ci li nga xamante ni moom la yàlla relation bi ñu boolee ak George. mooy entreprise bi société bi li ko fi saxal moom la ñuy ñaan li ñu boole moom la ñuy ñaan moom ci religion bi ñu nekk ñun ñu nekk religion bi ñu nekk tey jii mënuñu ko cee génnee parce que soo ko xoolee mu ngi soli euh, solinu murit mu ngi toog toogaayu murit tey itam lii biñ koy nas fii boo xoolee euh, ñun ñett woon ba ci ñu ñeenti ñu def ko benn at mu jàll deuxième année bi ñëw ñu dugalaat ko troisième année bi ñëw ñu dugal ko lépp nekk loo xamante ni mooy entourage boo xamante ni mooy li ma la mën a limal daal ci gàttal entourage baa ngi nii ñi nga xamante ni ñoo ŋànk kër gi tout patron yi dañ leen di jaleel parce que li ñu warloog ñun ñun ñu ngi koy def ak ñoom li ñu warloog ñoom ñu ngi koy def ñun ba kenn du weranteeg sa morom ci biir kër gi dernier moo bi mooy li nga xamante ne mënta ñàkk góoraloo kaay li nga xamante ne moom mënta ñàkk te muy loo xamante ni ala kulli xaal dañ koy wax kii ci li mooy suñu membre boo xamante ni mooy pecc ñi nga xamante ni mooy euh, jawringu maga euh, safar bi bu yàlla ñëwee ñuy wax dëgg dëgg dañ koy wax kon yaakaar naa li ñu booleeg Georges mooy ànd juboo nekk benn seetuñu kii mooy kii seetuñu kii mooy kii ah, te kii nekk nu jawriñ boo xamante ne tey mënula dem sans ñun ñun mënuñoo dem sans moom kon lu yàlla boolee kon nañ koy boole te wax ko ci mbooloo mi lii bu nekkee télé dem ñuy dañ ci kontaan suñu beneen euh, euh, euh, mbokk bu taxaw ni lii kat ñii liñ def lu rafet la wala liñ doon waxtaan jaar na yoon lii lañ ci doon wut yow mi nga xamante ne yaa teew lii di ñu koy jëlal bugg ñoo yóbbu fi nga xamante ni moo kawe suñu njortu a ah, yal na ko yàlla yokk ak entourage bi nga xamante ni ñoom moom lii ñoo waral lii képp ñu ngi leen di ziare bu baax eh, tey delloo ñu kee mooy kee mooy sëñ moo mi nga xamante ni moo fi suñu eh, eh, mécanicien bu mag ki topp ci kawam mooy moo Gueye ah kee da kaa jiital comme ñun boo xoolee ñu ci tegu mooy papay mi nga xamante ni moo nekk mag ci ñun ñu ngi leen di ñaanal daal ak pa bee nga xamante ni mooy paplo moom la ñu booleeg ñun mënuñu koy ñàkk boole parce que ñoo dem encore te ñëwul mënul toog itam te waxul kon yaakaar naa bu ñuy delloo njukkal mbooloo mi dañ ko ciy boole ak waa kër gi tout mbooleem képp ku fi euh, yaa ngi ci euh, fii rek ak ñi ñëw ak seen xel nekk fii te ñëwuñu ñu di ñaanal yàlla déwén kuñ mënul teew ren déwén nga teew loolu yëpp ñu ngi leen koy ñaanal gaa yëpp a ngi nii incha allahu Daniel Mobile ñu ngi leen ñaanal bu baax yow itam rajo bi nga nekk ak télé bi nga nekk yal na la fa yàlla yokku da eh, nga demal sa yëfu bopp. wax leen jaajëfe borom jaare jërëjëfe laa ilaaha لا إله إلا الله أبو رجال لا إله إلا الله نبالا لنيان يرمني فال كرب دولي فال فانجفي نبالا لنيان فال يرمني keroog doole faal fam jafe ni ma lan la ñaan yërmande yaaram bayu mi mbaake yaay fallilo ni ma lan la ñaan yërmande bayu mi mbaake yaay fallilo fu sa waay ne xam nga ko abori jaaga fu sa waay ne xam nga ko abori jaaga fu sa waay ne xam nga ko umi Mbàkke Falilu jambaar fu sa waay ne xam nga ko maa jambaar Tuba. الدهر ورجابا جريج بسرين توبا يا جبس أحمد جريج بسرين توبا لا إله إلا الله جريج بسرين توبا لا إله إلا الله ومن جاجب برم جاري ميني باب سنيلي بمو سرين توبا شيخ أمي معك يا فليلو ومن جاجب برم جاري ميني باب سنيلي بمو سرين jërëjëf Serigne Touba jaajëf wax leen jërëjëf wax leen jaajëf borom jaare jërëjëf Serigne Touba jaajëf. amoori jaal ba lamp koy woo. lañ koy woowe maam seera faal kàngal la aboori jaaba jannaa jàng alxuraan moo ko tafsir ko biiram biti yàlla may ko muy jàng ak a jàngale ak di taalif balaa nga xam-xam yëpp nekk aarif dem nga ba jeexal xam-xam sariya nekk semence yi ca amul tari mu ne yeggul ci yàlla mën la yeggale mu listixaar ñu war ko mbar may seddale nii ñu ko may ba julli waat ci ko moo waa këram bat bi ca daal waaju ko weddi laa yaram leeram gi na asamaaw ba jàbbaroo ba jaxasoo bure ala dal leen ci yàlla boom tuddiyoon ñu suñu ndam yëpp moom doole faal baabu laay baabu laay baabul الجنة فباب لاي باب الجنة فباب لاي باب الجنة أمي ماكي فاللو أو كاد إلى يل كورين دي ساندر ما تمنغنو لا يل بيال فالو تمولكي ملكون ngay fanaani di majjal ci malaakay jàbbaroo wër ko sax di sabbal moom i bàkke baliloo jamaal awa kaa day layal ku ren di sandarma te man nga noo loyal ba yàlla fal noo ca mun keen mën a koon ngay fanaani di majjal ci malaakay jàbbaroo wër ko sax di sabbal yaa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 gannaaw ba léegi yéen ngi noonu di ñu suivre bu baax a baax papa ñu ngi lay maa ngi leen di delloo siyaar di sant yàlla di jullu ci yonante bi di ñaan yàlla lii ñu yàgg koo fekk yàgg koo def di ñaanal ki nga xam ne moo waral lii ki sos garage bi sos société bi muy Ousmane Wade di ñaan yàlla sotti ay xéewal ci kawam dëkkal ko ca àjjana ya gën a kawe ak mboolemi jullit di ñaanal xale yi ñu bokkal di def lii di leen sant di leen gërëm ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ndax ku ne sa loxo nga ci garage bi yàlla dafay def loo xam ne xàmmewuñu tijaan xàmmewuñu murit xàmmewuñu chrétien ndax Source mi ngi nii ci sunu biir lu ñuy def moo ci ëpp pas-pas moo ciy jiitu xale yi ànd nañu nekk nañu benn nangu nañoo liggéey nangu nañoo sonn bëgg nañu kër gi bëgg nañ société bi nangu nañ cee sonn safar gi itam ki tax ñu di ko def muy sëñ Tuubaa mi ko digle ñoom ñii ñu jàpp ci ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa muy Assane ak màggat nangu cee def lu dul jeex ñooñu jox liñ jënde nag ba desal xale yi dajal liñ dajal ñu boole ko def lii ba mu mel nii waa koñ bi yépp daje fi ñu kenn xaar ma yàlla ñëpp nekk benn ku ne def sa alal ñuy sante di ñaan di ko fekk ay déwén yu baree bare te di ko tal yàlla def xale yi kenn ku boo ko mënoon danga koy def yàlla yokk seen i xéewal yokk seen doole ñi nga société bii nu nekk di fi liggéey nga xam ne ñun ñëpp noo fi daje yàlla gën koy mboolem société yi ci adduna bi ñu ngi ñaan yàlla mu féete leen kaw yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ndax ki ko sosoon day comme bu bu sañoon ñëppay liggéey kenn du taxawal loolu la ko sosee ba yàlla yeggale ko fii mu jox ko ay doom mu jóge fa ay doomam téye ko téyin wu rafet waaw xàjjaloo wuñu xàjjale wuñu nu gënale wuñu xale yi nga gis fii ci kër gi mboolem apprenti sax weer wu dee dafa am lu ñu leen jox te dañuy jàng métier bu leen neexoon na yoon nekkul ci ñoom dañuy jàng métier te defuñu ko waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu fekk ko di woon yu bëree baree bëri te bu déwénee yàlla na dàq ren bu ko namee si yàlla mel na ren jërëjëf nekk leen ci jàmm lu ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu ak yonente bi mu tax ñu di ko def ndax sëñ Tuubaa lu mu am yonente bi la kon lu ñu def yonente bi la yonente bi tax ñu def ko ñun ñi koy def ñu bari ay taalibe Cheikh lañ mais kenn xamu ko kon nag ñu sa leen di gërëm di leen sant di sant it mi nga xam ne moo def lii bokk ci ñun te lu ñuy def moo cay jiitu te yàlla def muy karate kon fii xaajale amu fi xaajaloo amu fi yàlla na ànd bi gën a jëm kanam ñi ñu jiite yàlla na leen fi yàlla bàyyi ñu yàggunaw jiite ndax bañaluñ ñu dara lu ne lu ñu nekk ña nga lu ñuy def ñooñu cee jiitu waaw amul dara lu ñu nu xeebal xeebal ñu dara xeebu ñunu nu jox nañu suñu cur jox ñu suñu wàccaay maa ngi gërëm xale yëpp nag ñu ne ci garage bi góor ak jigéen mag ndaw ndax jox nañu ma cir boo xam ne bi sax yëgguma fa kon yàlla na yàlla guddal seen fal may leen jëre jëf nekk leen ci jàmm maa ngi lay gërëm di la sant yow borom kii bi jërëjëf. ba léegi tam yéen a ngi gis noonu itam yéen a ci bis papa ñu ngi lay ziar. waaw ah, na yàlla nangu ziar. waaye ngi sant bu baax kay téji ji seen taxawaay bi nga xam ne tey ji jàpp ngeen ko tey muy samedi tey ji ngeen nekk ci li nga xam ne mooy bisub safar bi tey ji ba ñu yëg-yëg tey ngeen am waaw ah, euh, rek ak jaam ak salaam mbégte rek lañ yëg ak xol bu sedd guy eh, loolu rek lañ yëg ci bisu tay bi parce que dafa neex tey man li ma gën a neex ci affaire bi mooy mbooloo mi ànd nekk benn tey en trans tey ñëpp ñëw nañu kenn desul et eh, en trans nekk nañu ñoo xam ñoo bokk ndey ak baay xame woo xale xame woo mag ñëpp bokk na nekk benn ànd nekk benn kenn amul si problème waaw tey gis nga booy ni niñ taxawoo affaire bi amul mécanicien amul électricien amul soudeur amul dara man ànd googu rek moo njëkk a sedd sama xol quoi entente bi ñu am moo jafe quoi eh, damay ñaan yàlla daal entente bi mu mu gën a avancé ñaanal entreprise bi tamit entreprise bi gën a avancé parce que vraiment li lu jafe la daal waaw tey jii tey jii ñu gis ne Georges tey nekkul jullit moom mi nga xamante ne tey bokkoo leen diine tey jii moom mu am taxawaay bu mag bi tey jii ci bis bi. waaw loolu loolu tamit li ñu marqué la li ñu marqué la wax dëgg yàlla loolu mooy li wax naa dialogue euh, chrétien et musulman mooy loolu. waaw parce que Georges euh, wax dëgg yàlla tamit moom mu ngi fépp mooy li ma wax ci garage bi rek ñëpp bokk ndey ak baay bu demee ba Georges mi nga xam ne moom bokkul ak ñun. li ñu bokk euh, musul euh, moom chrétien la ñuy musulman waaye ñoom ñu ngi mel ni ñoo bokk ndey ak baay moo lay won na la garage bi amul xaj amul seen ñëpp benn lañu waaw wax dëgg yàlla tamit sorte moom ab taxawaayam rafet na trop quoi si garage. dernier kàddu waaw dernier kàddu yi mooy li may di sant di gërëm rek eh, di rafet loo tamit li nga xam ne moom la gaa yëpp def rek eh, ànd nekk benn jàpp dañoo war a ànd nekk benn booloo nekk benn. Eh, lépp luy yëkkatendoo di tegandoo di di yëkkatendoo di tegandoo suuf waaw parce que lii dara daaxu ko waaw ñun moom wax dëgg yàlla muy apprenti yi muy patron yi ñëpp benn lañu suñuy apprenti yi yëg nañ ñu sagal nañ ñu teg nañ ñu fu kawe daal ba tax na daal wax dëgg yàlla tamit tey man dama ànd ak mbégte bu rëy bu rëy rëy waaw wax dëgg yàlla eh, di sant te suñuy patron ñoom tamit kenn demul ñu des ñu baax lañu wax dëgg yàlla gis nga ñoom tamit seen lépp jël def ci ci bis bi waaw jël lépp def ci waaw luñ soxla lu ne rek ñoom dañ ciy taxaw ba jeex wax dëgg yàlla dañuy dañuy wax rek bravo o entrance. merci beaucoup waaw si kanam a kanam incha allah. soxna si la nga def. maa ngi fi. yaa yem jàmm baax. maa ngi sant yàlla. tey jii ñu gis ne tey jii safar la tey fi nga ne tey mooy Malika tey yéen ci biir entreprise bi tey jii seen taxawaay tey ci biir safar bi la. ah nañu sant yàlla bu baax julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di wax ni ah, wax dëgg yàlla kontaan nañ trop si affaire bi ndax defoon nañ ko daaw jël defaat ko déwén defaat ko ren kon yaakaar naa buñ ko mënee defaat déwén day gën a neex di ñaanal yàlla mi nga xam ne mooy alaaji Ousmane Wade mi nga xam ne mooy borom garage di sama goro di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd yàlla na ko gën a fi mu jóge doom nga xam ne mooy Assane ak ñoom màgget ñoom ñëpp wax dëgg yàlla macha allah yàquñu si dara defar nañ lépp mu baax ñun ñëpp lañu boole uuf namuñu dara lu ñu soxla ñu yëkkati defar nañu te mënoon na leen ci bañ a fekk dañ leen di ñaanal yàlla yàlla leen yàlla defal jàmm di ñaanal patron yi ci garage muy ñoom Mor Fall Modou Gueye ñëpp Georges di ñaanal ñoom Ousseynou ñoom ñëpp ñuy liggéey fii ñëpp di leen ñaanal yàlla ni ñu mën ren yàlla nañ ko mën déwén foofu laa foofu laa doon jëm ci Georges nga xamante ni yéen bokkal leen diine bokkal leen yéen di ngeen jëm tey ñu gis ne am na taxawaay bu mag tey ji ci bis bi tey ji loolu tey ji maanaam bu ngeen ko gisee tey maanaam lan lan leen di gën a delloo dañuy sant yàlla rek da xam ni ya yàlla ñu baax lay boole zone mi dëgg la bokkuñu diine mais borom baax la amuñu fayam am oyof na baax na yaatu na boole na ñëpp ñu nekk benn ni ñu ñaanal yàlla rek yàlla nañu yàlla gën a lafal cat rek jubóoñu ñu ñu bu baax a baax a baax a baax yàlla nañu yàlla may gudd fan ak weer ba ñu fekkee waat déwén incha allah. jërëjëf merci beaucoup. fi nga jaar moo la def li nga doon waay waay doxal te bul gestu kuy dox di gestu léegi ñu romb la takku say noon romb yeb la jamono ji ku la na bu réer ko ba keroog muy xam ne xam ba ca mooy ak nite bul di wax bopp jëfal ñu xam yaay kan bakara ba naa fi wa man xaal kàddu gi ñu jël nag dañ ko jël ngir li nga xale yi def mooy li ma leen expliqué sànq rek ci Orange Trans Orange Trans bokk nañu ndey bokk nañu bay xamee woo ku mag xamee ku ndaw mooy comme li ma leen expliqué sànq tey fii amul mécanicien amul électricien amul soudeur amul tôlier ñëpp ci biir kon ànd nañu bokk ndey ak bay lii ñu def nag man dama gën a yëngal parce que kii daa nekk koo xam ne tamit kenn la woon ci ñun muy apprenti boo xam ne apprenti bu ñu yégle woon ñëpp la woon ko papa da daan taxaw luñ soxla da koy taxaw guddeeg bëccëg boo tourné laaj seex Faye day nekk sa ginnaaw e patron mu ngi nii Mor Fall ñun ñoo ko seqoon ak moom dama ko daan wax ne ko moor booy bii tey moo lay remplacer ëllëg parce que day nekk sa wet tout le temps su mu war tourné daje booy bi mu booy bi fii kon mu mel ne dañ koy ñaanal yàlla booy yi ñëw defaat affaire bi ma sol ay ten ay teneem représenté ko fi comme moom yaayam ma ngi nii waa garage bi ñëpp te ngi rafetlu yaayam mu ngi nii toog Mor Fall bi moo ko yoroon ci loxoom ak ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo fi nekkoon si garage bi waaye booy bi dañ koy ñaanal yàlla foo mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na yàlla yeesa yërmandeem ubbi bàmmeelam ba mu leer nañu yàlla nag yàlla dugal ci àjjana firdaws wax dëgg yàlla li ma la expliqué si entrance rek moo ci nekk entrance moom bravo man nee naa la ñii ñoom aussi dañ leen di sagoo ko waa ñun ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo seen parce que ñoo ñoo ñoo ñun ak ñoom ñoo nekk si garage bi loolu la yàlla waaye dama koy wax ne man dañ leen di tiitaroo ñoom ñii ñëpp parce que amul koo xam ne joxuñu cër ñun toll ku ne pap rek ngay dégg doo dégg leen luur pap temps mënoon woon mel nu nekk mais ñu ko kon dañ leen di ñaanal yàlla fu ONATRAS jëm xëy na ñun après am na fu ñuy yem waaye di ñaan ñoom ñi nga xam ñooy xale yàlla nañ yóbbu ONATRAS fu gën a kawe kawe kawe kawe kawe ONATRAS yàlla na ko yàlla def mu nekk entreprise bu gën a kawe si Sénégal wasalaam ñu jox Aziz moo am lu mu expliqué <coughs> asalaamaaleykum maa leen di gërëm di leen ziar di leen baal àq di leen baal àq bu baax a baax man moom xam naa ni euh, mënu ma wax carrément waaw ah, mënu ma wax daal waaw ah, mais lii daal initiative bu baax la bu rafet la waaw ah, te yàlla moom mi ngi siy dimbal dina suturaal waaw ñu koy ñu koy feete chaque chaque chaque année waaw daal lu ma mën a bëgg a wax rek xam dama koy dama dama koy xeeb parce que sama xol daal moo fees carrément euh, mais li ñuy wax rek ñun ñëpp benn lañ fii amul xale amul mag amul ne kii moom moo mag moom moo kii kii mooy patron sàngam amul ñun ñëpp benn lañ waaw ñun ñëpp benn lañ mais li mooy mën a wax daal yàlla nañ yàlla lafal cat waaw may ñëw gudd fan ak wér waaw lu ñu mbëbal si Overtrace tamit yàlla jàppale ñu ñu yóbbu ko ba si kaw a kaw a kaw kaw waaw ba mu nekk entreprise bu gën a mag si at si senegal waaw ñëpp xam ko waaw yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla daf si daraje Seydina Mohamed kii moom wax dëgg yàlla moom suñu booy la woon bu baax a baax a baax koo xamante ni si waxuma dara mais ah kenn woon su ñun waaw ñu ko doon rendre hommage mais daal ñu ngi koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla xare àjjana suuf sedd si kawam yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def loolu daal laas doon wax man moom waxee laa mënut noonu la demee daal wasalaam. dana wax kontaan nañ trop ñaan yàlla yàlla dañu may ay at ñu gën a fekkee lii man nag damaa mënul wax wax dëgg yàlla. di wax ni Cheikh Faye sama waay la sama xarit sama lépp la dëgg yàlla ñoo bokkoon liggéey bi bokkoon benn patron ànd nañ fu nekk dépendance foraan nañ fu nekk man ak moom mu nekkoon ni koo xamante ne si ni daawul mer nit ku oyof ni koo xamante ne si ni alalam du ko booleeg dara mu nekkoon ni koo xam ne dara Cheikh Faye loo ko wax neex na ko loo ko def neex na ko ñu koy ñaanal nag yàlla na ko yàlla yërëm jégal ko bàkkaaram xare ko àjjana yu gën kawe lu gënoon nag moom ñun ñu nekkoon ak moom ba ci kanam ak kanam suñu borom mooy dogal lu ko neex waaye dañ koy ñaanal fi mu jëm gënal yàlla yërëm ko xaaral ko àjjana. ku ma wax wax. fekk la ca nangul ku la nangul ku la nangul ku la nangul ku la nangul ku la bañ li yëpp du dara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 lañu rendi Ousmane dellu jam faaroox rey nañ ko tuumaal ko jàpp Marwaan ma soog ca mbir ya déglu leen ma yeen gaawaan gaw nañ kër ga arbayiina yow ma watis ka tan lii doy na fecci war ma kenn musta gis nañu rey dañ ko salam dog booba woor na laay yow jamal di àjjuma toj nañ bëtub càmmoñ ba bis ba ja def ñu toj bëtub ndeyjoor ba muhammadun ababakar sadiq rayam wajar na waaju nekk yuuxu ray nañ ko wat ko sànni ci santaar ya taxañ jafal boole kook himmaarun Aliou Haydara doonoon jàmbaar ja Aboo Useynu wal Asan yaakaar ja bañam yaray nañ ko ci koofa ngir weddi yàlla gaañi rob ko foofa famille julee fajar la im jam fab jaa ñaw bettu ko koy jam seetal Useynu yow mu asura nañ ko rey ca néegi Karbalaaya noon yaa nga yor bopp ba gannaaw bu dee naa làmmiñ wa naan seeyax la muusina seetal asan noonu ya ko tooke mu daal di faatu soxna saa ko sooke ñoo tooke saa di dellu tooke baaxir dellu tooke seydi la abidina taaxir sotum rasulallahi mazal kazimina ganeefu ko am ngor doomi yaasim tar nañ néegam ci kawam ci bagdaat tej nañ ko ay at baat ba mel ni La ilaha La

Madina bisira bii la dem Madina fanaan na jim xuntu fanaan na ci ay doj ànd ak Babacar lu nekk daj fab nañ ko tàbbal ko ci biir sarwaan jox nañ ko tooke teewu ko doy kéemaan bisub keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak fallaxi mocce ko xayru naasi bisum keroog la yàlla daaneel keefar yëkkati lislaam li day na tiitar yal nañu yàlla boole ci yoolam baam bi jaayi seydina muhammad rasulalaay ثم سلامني ذا الخلق كله

المنتبه فقلت مستغفرا رب القدس به أستغفر الله جل سجير به للانكسار يا